Toujours dans votre acti du jour de ce 3 octobre 2024 fii VIP People TV de ma bëgg cette année. ben vidéo bo xamanteni ni xewee na Sénégal ci Sénégal diggante mars 2021 ba février 2024 Les plots xamanteni dal xewon na fi jëm ci politique insécurité ak li nga À mon insurrection amon na fi nañu année vidéo bi le soir. waat. ñi fi nek ñëpp dañoo nek seen digg entraîné nous ba mat liñu len leen ko ci joxone gannaay mu dem xexi le peuple va le sortir du palais et va le traîner dehors comme Samuel Doe. ñi jiite depuis début ba léegi solo leen dajale woon ñoom ñëpp fusillé leen defoo bàkkaar. dama len bëgg wax leen lu am solo préparez-vous au combat. wajal len sen bop chaque jour chaque heure chaque minute te préparez-vous au combat te bu len déglu nak ñi tok na len way. Nous ne sommes plus au temps des révoltes de salon. Comme je l'ai dit, notre moment de vérité est arrivé. Celui des véritables gladiateurs. Soyez mobilisés. Le combat s'annonce mortel. Le mot n'est pas de trop.

ay mais nous ferons ce que nous avons déjà fait je crois que le peuple est suffisamment motivé et mobilisé euh, euh, nous ne ratons absolument pas de momentum dans la stratégie de lutte il faut savoir euh, marquer chaque étape mais je pense qu'aujourd'hui, si ce ceux qu'on a en face de nous n'ont pas suffisamment décrypté les messages courts, ils seront les seuls perdants. Parce que la seconde vague risque d'être beaucoup plus dévastatrice que la première secousse. Sénégalais foo mun ci ci Sénégal ak suñu mbokk yi nekk ci diaspora est-ce que pare ngeen daañu xeex de Macky Sall laay waxal daañu xeex ak moom. su dee ko bëgg continuer dinañ jël bakkanam. te nag bu leen ci déglu kenn ku leen naan da ngeen violent wala da ngeen bëgg fitna. du yeggali mandaam 2024 du ko fi fekk. may wax nag waa APR ngeen déglu ma bu baax waa APR nañu xam ne bu ñu taalee réew mi duñ ci mucc bu ñu taalee réew mi duñ ci mucc. C'est nous les Sénégalais qui travaillent ici. Ce n'est pas les, les, les, Français. D'accord, les Français sont là, ils sont venus, ils sont investis, ils ont, metti, ils ont, ils ont investi, ils ont mis leur, leur argent, mais ce qui se passe ici, c'est une catastrophe. gis nga la manifestation ba ay milliards fay Euh, kër Matar ba mu ngi metti lool lool lool waaw ñi nga xam ne ñoo nekkoon garde yi sax gis nga ñi nekkoon garde yi sax ñi nekkoon garde yi sax daw nañ dugg si biir kër gi. ngeen ko oto yaa ngi nii ñu taal ndeysaan mbir mi metti na lool lool lool tey gis nga ñoo Kër Matar ba ancien ministre des sports. ay euh, matériel yoo xamante ni moom moo nekkoon euh, ci biir salon maître El Hadj Diouf. foofu la télé bi nekkoon télé bi nag daanaka dañ koy yóbbaale ñoom ñi nga xamante ni nii def nañ bile attaque dañoo yóbbaale li nga xam ne moo di télévision bi. kumu neex nak nga tok fa ne Sonko nitu fitna la j'assume Université bu dakaru jël wàllam lol ci manifestation yi. saccagé nañ vraiment yak nañ jël ay ordinateur et tout ça dal moy def nañ groupe ñom ñep kawule wu ñew naam dal nañ auto yi nga xamanteni administration bi moko mom wante itam tek nañ ci personnel bi Papa isa Fofana mi nga xamanteni wotom ci la bokku ñaawlu na ko. ces votre que vous voyez là, ce sont des, des collègues, hein, ça appartient. Oto yi ngeen fi gis yëpp suñuy naataango ñoo de moom. ñi nga xam ne ñoom ñooy bokk ñoom di liggéey fii euh, bis bi ngeen gis nii mooy bisu personnel lu BU euh, woto yi tamit euh, mboolem ñi nga xam ne ñoo fi liggéey ku nekk sa woto fi nga ko gaare woon waaye daal lépp la ñu yàqate lépp la ñu yàqate toj ko bàyyiwuñ fi dara loo xamante ni bi lu ñu mën a jëfandikoo waat la man xawma sax la mooy jubluwaay gi dëgg yenn ci faculté yi itam jot nañ seen wàll bokk na ci fac droit nga xamante ni chapiteau bi lépp dafa tàkk ba jeex boo demee ci sisti woto yi dañ koo taal gën leen farlu gën leen takk ndigg yi ndax lii day door tey la commencé day door nee naa leen xeex fi mu gën a méttee fa victoire bi gën a jege. nañu organiser xeex bi nañ ko synchroniser. ma jiital ci ndaw ñi. ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci ay xeex nañu fexe ba xeex yooyu ñu dajale ko. fas yéene jàkkaarloog Macky Sall jàmmarloog moom xeex ak moom jële ko fi ci fan yi di ñëw ànd ak xeex bi ñi nga xam ne ñu ngi koy xeex muy xeexu terrain bi dina am yeneen xeetu xeex yoo xam ne dinañ ko andi. cet enfoiré en arme. ndax ñiy essayé yàq xel yi du wax xale yi naan leen ku ci dee yaa ñàkk ak wax yooyu nga xam ne amul benn solo ku dee sa way jur juraat.

dow bonde en ɗon goni daretuna fuɗɗi fuyni worfeɓe woyoɓe nekk ci sénégal na nga dox jëm dakar ñu dajale lu ko raw dañuy dox dem pale jële fa Macky Sall yow nañu dox pale jële fa Macky Sall ci wala ci ci réew mi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

N'y a pas du ma ci commentaire ku ci nekk yaa koy seetaanal sa de defal ci sa bopp sa commentaire mu doon noonu li nga xamante ni la xewe ci Sénégal des fi cadre du yep dégg fi lii nga xamante ni mooy ay dégâts yoo xamante Sénégal mi ngi continuer est-ce que des dañu war a en 2024 di gis Sénégal boo est ay convocation à tout à du tey su ñuy dictature à vous de faire la comparaison ndax dictature jamono ji la am wala dictature ci eru Macky Sall la ndax liberté d'expression jamono ji la am la liberté d'expression qui est Macky Sall à vous de juger